Lamine Diack euh, moom mën naa am nag altine ji ñu daal di koy tertu ndakaaru loolu nag euh, xibaar la boo xam ni site bii di challenge sport point info moom moo ko joxe njiitu la site bi nag euh, moom nee na nag yaakaar am na ci bu baax a baax ndax déposé nañu caution bi ba noppi mu nekkoon cinq cent mille euros ëpp. ñetti téeméeri million ci xaalisu réew mi ñu déglu ko moom njiitu sit boobu di Abdou Latif euh, Diop ci jokkoom ci téléphone beeg euh, Cheikh Tidiane Diagne. dëgg la nee nañu selon information yi ñu am yoo xam ni jege na ko lool nee ñu Lamine Diack euh, dana ñibbi si Sénégal altine bu sobee yàlla bu 9 jotee ci benn vol bu ñuy wax Air Sénégal. ay prosom nag ñu ci demee nekk avocat ak ay doomam yooyu contacté lañ nangu ñoo wax yàbb ci waaye am na ay yu ñu confirmé ne eh, Lamine Diack si boppam Air Sénégal eh, war a jël lundi matin à neuf heures su fekkente ne eh, tout se passe bien pour ñibbi si Sénégal ndax kii di avocat maître Simon Ndiaye moom déposé na au niveau du parquet financier de Paris les cinq cent millions euros muy trois cent vingt sept millions francs CFA yi nga xam ne moom lañ ko doon laaj pour am liberté conditionnelle déposé na ko ba pare et il paraît que jox nañ ko euh, autorisé nañ ko pour mu defaraat euh, am passeport. boo xam ne nii euh, xëy na consulat bi ñu ngi ci taxaw pour euh, mu mën a ñibbisi lundi et passer la fête de Korité avec sa famille.